fàttalibikum newetu daaw bi moo gën fuufu newetu ren bi ci baykat yi allah Amadou Ndiaye xam-xama màcc ci wàllu newet moo ko wax ci Sud Quotidien le mandat yéene kaay na ko wax nga dëgg de baykat yi fa ñoo jaaxle ndax newet bi moo xam gerte ak dugub presque baaxut te su newet amut loolu baaxut ci am réew de aw xay la ndax baykat yi ñoo yor réew mi dund gi te ren seen affaire baaxut de Sud Quotidien na ko pour nag am na diiwaan yoo xam ne ak gox yoo xam ne ba baax na fa ndax yàlla ji ko defee taw bi affaire bi fa yéex a tàmbali xam ñoo xam ne fa tàmbali rek daal di xokk kon dëgg la am na ñu baax lewut waaye am na gox ak dëkk yoo xam ne seen gerte baax na seen dugub baax na li narta baax nag Sénégal mooy ubbite école bi yenn ci ay diiwaan ba léegi ndox maa nga ca école ya te ñaari ay bés moo des école tijji l'observateur moo ñu ko xamal vox populi na ko faay dëggal sa kàddu yi ndax ndakaaru njaay juróom benn fukki école ak juróom benn ndox maa ngi fa fees dell jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi nag ma ngay ñàkkal fayda yëf yi ne ah loolu dara danañ ko régler li ab enquête ci xëy ndaw yi ci réew mi ña ci am ak lañ leen di mosal ak ñu amut direct news na ko xaaral ma xam ne ay ndaw leen leen a tàggat ñaari at boobaak léegi ñu nekk ay huissier de justice te ba léegi fi mu toll nii coono bu du xaddu jeex ci lañ nekk ñeneen ñu nekk ci coono bu xamul xàpp mooy ñi ñuy wax ay activiste maanaam bañkat yi ci réew mi nga xam ne lépp lu Macky Sall def njiit réew mi lu jaarut yoon ñu ñaawlu ko dal ci kawam fi mu toll nii nag ñoom ñooñu nguur gi mooy dal ci seen kaw yaaw seetal fañ leen di lukkat rëbb ñu ngi leen di jàpp ñu ngi leen di teg loxo ñu ngi leen di xoqatal ñu ngi leen di tiital lépp ngir ñu tëj seen gémmiñ yi ñi koy def nag fa ñoo jàpp ne Macky Sall moom kenn waru koo kontar am na activiste yoo xam sax fañ leen a jënd ñu jaay seen ngor yi mu jaxand ak ba tax kuréelu politique gi ñuy wax M2D ne Macky yow la ñuy waxal activiste yi ngay jàpp ko xoqatal di tëj kaso fa ñoo bëgg mu dakk ngeen génne leen lu ko mooy li ñu amoloon juróom-ñetti fan ci weeru mars fitna ji amoon Sénégal moom lañ fiy defaat seen kàddu ci le mandat yéen a kaay a kaay bi di libération di ñu wax leneen mooy jàngoro ji ñuy wax cancer fay jeexal askan wi de yéttee cancer mi léegi cancer li muy rey fa ëpp juróom-ñaat téeméeri junney doomu aadama yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeen fukk ak ñett cancer rey na leen ci benn at 2020 ñu ne déetawaay fukki junne ak benn yu toftal ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari doomu aadama am nañ cancer yu bees tàq libération moo ñu ko xamal bi gën a bon nag ci cancer yi mooy canceru foie falay sempi xamul nag garab kum dal moom dee rek direct news na ko jigéen ñi tamit cancer bi leen sonal mooy canceru ween ak a bëri fi mu toll nii juróom-ñaar téeméeru jigéen am nañ canceru ween yu bees tàq fan yi leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy police teg la loxo di la méttital fitnaal ba nga doxee fa faatu fi mu toll nii coow loolu ñu ngi koy ruumataat Sénégal de mais police yi ni ñu def ni ñu jaaduwut ah xoolal Cheikh Niass ma nga ne la faatu na fañ ko tegoon loxo ci ab contrôle mu mujj dee su du quotidien moo ñu ko xamal l'observateur na ko moo taxit ka jiiti woon commissariat bu wàqi naan Nimzaat commissaire ba jëlee nañ ko fa l'observateur na ci ab contrôle policier mu mujjee ci ab morgue loolu da moo fa yoo xam ne yu ñaaw la yu ñu teg ci kaw police yi PV ba daal la yéene kaay bi andi critique yéene kaay na ko ginnaaw bu mu faatu moom Cheikh Niass def nañ autopsie waaye terewul ba léegi xel yaa ngi ñaaw de 24 heures yéene kaay jox kàddu ñiy xeex àq ak yelleefu doomu aadama ne fa ñoo war ubbi enquête ngir leeral ndax Cheikh Niass police yi fañ koo dóor méttital ko ba mu dee wala boog fa dee naturellement kenn dóoru ko loolu fa war leer waa seen frapp na permis ray nit loolu moom jaaduwul ci ku munti doon policier kudut kenn amul sañ-sañ bi info yéene kaay na ñi ñi teg loxo kay ci yi ñu doxee fa faatu coow laa ngi bëgg a bëri Sénégal de beneen coow bu am ci policier yi mooy commissaire Massiré Gueye ba ñuy wax ne fa àla traité ba pare ñu bàyyi ko ca GMI ba léegi info yéen kaay na naqari na takk der yu bëri ndax fa ñoo jàpp ne am na ay ndaw ñu tàggat ñu nekk ay GMI su fekkee ne nit nekk na GMI ba àla traité kay fa war a bàyyi ndaw ñi ñëw fii kuñ mënta remplacer amut lii am ci diggante Afrique ak France muy ay sommet ndaje am na ay kilifa yu ko ñaawlu ne du dara sommet France Afrique Afrique caaxaan caaxaan France téye Afrique ne du ñu may jàmm rafetlu fas yéene nekk président ba jiitee gum réew ma jubbanti ko teg fa démocratie xalaat dañ sàcc ñu delloosi ko ba lépp normal su ko defee mu jël réew ma organiser élection jox ko askan wa ñoom soldaar yi ñu delluwaat ca kaaya si du quotidien moo ñu ko xamal tàggat yaram Aliou Cissé woowaat na Diao Baldé ba pare nag sappe ciment record yéen a kaay ñu ko xamal laas yéen a kaay na ko ngir bañ coow Aliou Cissé woolu na Bouna Sarr stade yéen a kaay ne man maa ngi ci jongante bu neex bu nar a am Angleterre City ak Liverpool li neexut ci benn doom mooy sa baay jur la ba pare bañ la maanaam góor ñu bëri fa ñuy hëmbal jigéen wann loo ko lor ba mu wóor na la yow la nga mujj bañ na ko hëmbalu ma la du man enquête yéen a kaay na loolu nag fi mu toll ni fa bëri ci réew mi rawatina nag Casamance yow seetal ñeenti junne ak juróomi téeméer ak juróomi xale yoo xam ne seen baay fa leen jur bañ leen nañ fa xayma loolu baaxut laneen lu baaxut lu amee Nord Foire Dakar mooy ab xale góor la ñu bojji paaka ba mu faatu ñàkk bakkanam allah ka ko rey nag après fa dugg ci otom bi taal daw dem askan wa nekk ci ak tiitaange jaaxle ci ñàkk kaaraange ki ñàkk téeméer ak juróom fukki million mooy benn waay jabaram ak gorom bu góor maanaam baayu jabaram ñoo mànkoo dóor ko tappale ko nax ko jël ci moom cent cinquante millions mu porte leen plainte ñu dem ca kanam attekat ba yëf yaa nga amee waaye gorom bi sénégalais la Mamadou Lamine Diagne jabar ca tamit sénégalaise la maam jaara Diagne les ko yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom source ay yéen a kaay moo ne diiwaanu Kédougou fi mu toll ni askan wa nelawatuñ ba yaandoor fañoo ñoo jàq tiit ayaw seetal fa xam ab gaynde gu jigéen gu nekk ca yoon wa di dogaale borom moto ya ak oto ya moom daal bu lay dégg rek fooy génn dàqe la nee ay doomam lay xaar bañ ku leen laal waaye kum ca jàpp na la wër na fa lay seeñaatu de yéy sàqar mi lekk la ba nga jeex gaynde ëpp naa foxe gaaw leen ngeen jëlee ko fa man moom sori naa Kédougou te fi mu toll nii xalaatuma faa dem yéet mukk gaynde naa koy gis ci télé bi rek